علم إبليس بأن المنتقى خير الورى فخاف منه باتقاء قل المنتقى أسد كل مشرك معطي العدا مغيب لم يدرك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi amaan mbégte di sant yàlla borom bi subhanahu wa taala di toogaat ci kanam cheikh Mouhamadul Mountakha mii nga xam ne moo fi toog toogaayu cheikhul xadim ñuy ñaan Serigne Touba xaadimu rasul mu ñaanal ñi ci borom bi subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne lu mu ko ñaan mu may ko yàlla dëgëral taxawaayam bi te yàggal ko fi lool ba bépp naal bu mu naalal Serigne Touba mu àggale ko te ñu ànd koog moom. ñu toogaat ci kanamam nag mu joxaat kaddu rakkam jii nga xam ne ab taalibe me toog ci wetam. kàddu yum fas yéene yëkkati jëme ko ci jullit yëpp rawatina taalibey sëriñ Tuubaa yi kon ni ñuy def ñun ñëpp ñu maase déglu Cheikh Mahamadul Bachir moom sëñ Abdul Xaadir mi nga xam ne mooy wax ci kàddug Cheikh Mahamadul Muntaxa ñun ñëpp ñu maase déglu ko bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursalin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin bokki bokki taalibe yi ci ndigalul cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul am li tarixatil muridiya yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ñi dellusiwaat fii ci ndigalam fa seene jottali kàddu yi nga xam ne moo ñu ko sant ngir ñu jottali ko bokki jullit yi ak bokki taalibe yi la ci jiitu nag mooy di sant yàlla di sant Serigne Touba. di sant itam jabootu Serigne Touba gi nga xam ne daa joxe woon ndigal ci liggéeyam bii nga xam ne da ko ñor lool doon ko tàmbali yëgaloon leen ko ñoom ñëpp ñu ñëw ànd ko moom na mu ko santaane woon kon mu ngi sant ñëpp di sant bokk yi di sant taalibe Serigne Touba di sant mboolem bokk jullit yi nga xam ne ñëwoon nañ ci teew ci bis bi nga xam ne ca la doon tàmbali liggéeyam bu mag bi nga xam ne Serigne moo ko naaloon waxoon ne bil Moustapha lii banal qudduusu madrasatan biha yazulul aza wal jahlu wal kamadu loolu nag kon nee na la leen ci waroon def ngeen ko kon mi ngi leen di sant bu baax di ñaan ci yàlla ci barke Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne li ngeen def lépp jëmm ma tax ngeen wuyu ko kenn ku ci ne lam ci doon yaakaar yàlla na ci dajeeg lu kawe njortam ci barke Sëriñ Tuubaa di dellu si fii nag. di am ay kàddu yoo xam ne doo ko jëmale waat ci bokki taalibe yi yëpp di bokki taalibe murid yi ak mboolem bokk jullit yi loolo nag mooy eh, xew-xew bii nga xam ne mooy bëgg am di yoon wi nga xam ne moo dox diggante Thiès ak Touba ñu tuddee ko Ila Touba sëriñ bi nag di digal taalibe yëpp képp koo xam ne mën na ko mu ñëw teewe si bis boobu ndax nee na kat ne ñëpp xam ne loolu njariñul Sénégal gépp la waaye itam ki nga xam ne moo ko fi def di président de la république Macky Sall bu koy def itam dàkk lu neex bëggu Serigne Touba ak dàkk njariñu dëkk bi moo tax mu def ko fi kon nag nee na na ñëpp maase xamee ko noonu xam ne njariñu dëkk bi la kon nag nee na mi ngi koy digal ñëpp di xam ne bis boo xam ne ñor na ko kon mi ngi koy digal bi yëpp képp koo xam ne mën nga ko nga ñëw ci teewe ubbite googu ndax liggéey bi kat ku ne xam na bi mu tàmbalee euh, yàlla dogal na Cheikh Sidi Moukhtar moo demoon xeer wa ba mu tegee xeer xeeroo ñaan ci jox ko ndigal moom mii tey waxoon ko ne ko na dem teewal ko ci jataay ba ma waxal ko ci turam ñu tàmbali liggéey ba kon bu suñ borom dogalee liggéey ba mu ñaan ci ba yàlla def ñaan nga sotti tey jii. ndax Serigne Touba lu mu junj rek wane na ne euh, lu ko suñ borom may la ba noppi. ndax lépp lu mu tegoon bëtam la lii nga xam ne moo am ci dëkk bi itam moo ko ñaanoon suñu boroom wax ne woj bu xel xayra minal jihaati as-sitti wak fiha anil afaati kon xéewal yi nga xam ne moo wàcc si ci dëkk bi Sëriñ Tuubaa da ko fàggoon waxoon itam ne yaquudu lii manaafi'al buldaani xatti bila asamina abdaani kon fu njariñ mën a nekk ci àdduna rek Sëriñ Tuubaa fàggul na ko waa dëkk bi loola waral lii di ab bëgg am ni tey ci njariñ yooyu la bokk bokk na ci itam euh, ci histoire le 18 mars 1931 bi nga xamee ne raay bi noppi na te gouverneur général nekkoon fi euh, départ saxaar gi départ woon Rufisque ñëw ba ak si njaareem fekk fa ak Cheikh Mahamadou Moustapha mu ànd ak ak Cheikh Mahamadou ak ku ñu wax euh, Chérif Abdoullah wundu Cheikh Sidiya ñu àndi njaareem ba agsi fii Touba mu ubbi saxaar yi kon lii itam ci biir loolu rek la tàbbiwaat ku ne xam na ne itam Cheikh Mouhamadou Fadil bi nga xamee ne liggéey nañ godoro yi nga xam ne moo bàyyi ko woon Thiès ba agsi Touba ci 1961 moo itam nii la ko santaane woon inigiri ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacke itam 1970 bi nga xamee ne marché Ocass bi noppi na dafa waxoon ne képp ko yaakaar Sëriñ Touba ku ne ne ñoo ndax li ñu fi jëf Sëriñ Tuubaa la ko jëfal te ki fiy ñëw itam ganu Sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ bi jeexee jeexet yooyu la topp Cheikh Saliou Mbacke itam ku ne xam na ne bi nga xamee ne police bii ñu doon def ci jañatum waa noppi na moom itam noonu la ko diglee naka noonu itam bi nga xamee ne euh, Cheikh Saliou Mbacke bàyyi ko na fi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara fat euh, wuutu ko ci jataay bi it noonu la ko wéyle ba nga xam ne Cheikh Sidi Moussa aksi na ba moom itam wéylaat loolu ba Eh, Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké mii fi nekk tey yàlla ko fi yàlla yàgg lool tam ànd ak wér ba noonu ko kilifaam yi jëkk daan defee mooy tam mu fas yéene ko doxale noonu. kon loolu day yoon wu mu fi ba fekk kilifaam yu jëkkee daa ko def loolee képp lay fàttaliwaat bokk julli di ko fokk fàttali bokk taalibe yi képp koo xam ne yàlla man loo na la ko nga ñëw teew ci bis boobu yi ngir eh, sant ko yàlla sant ko Serigne Touba ci xéewal googu yi nga xam ne. ci jiiti réew mi def na ko fi te defar ko Sëriñ Tuubaa te moom mu fii Sëriñ Tuubaa war ko seere ngir ñëpp dugg ci bisimillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jërëjëf euh, mbokki jullit yi jërëjëf itam mbokki taalibe yi kàddu yaa ngi noonu bàyyee ko ci sëriñ Cheikh Mahamadul Bachir ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa mu jëm ci nag euh, ubbi autoroute bi nga xam ne moom la ñuy wooyee Ila Touba mu war a nekk alxames ñaar fukki fan ci weeru euh, euh, décembre wi nga xamante ni moom la ñu nekk ña ngi koy ubbi nag fa autoroute ba jeexee ca yoonu Touba Falwa euh, rendez-vous ba itam 3 heures ci bëccëg lay doon kon sëriñ bi nee na mbooleem ñi dëkkee Touba ak li ko wër taalibe yi sëriñ Touba ak ñu ne ci biir réew mi ak bitim réew fu waay mën a ne te mën a ñëw si sëriñ bi nee na nga ñëw fekke si ko loolu nga xam ne moom la ñu ubbi kon bokki jullit yi bokki taalibe lii mooy woote bi noo ñaan nag àgg ca bis ba ci bismillahi rahmaani ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ci am ci ngërëmul Cheikh Mahamadul Muntaxa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.